wa ashhadu an laa ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mbokk téléspectateur Prestige Thiès yéen baaxoo seetaan seen émission jotaay diine ginnaaw bu ñu musloo ci seytaane suñu noon bu mag boobu ñu ngi commencé suñu wax ci turu borom bi subhanahu wa di ko sant euh, sant gu amul àpp ci lim ñu may ñu teewaat fii ci suñu émission boobu di jotaay diine ñi ngi sangu ñi ngi julli ci sangu-sang yi sey Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi ñaanal way daw lii yàlla xaaree leen àjjana di ñaanal ñi fi desandi te feebar nekk ci hôpitaux yi wala ji ci kër yi yal leen yàlla saafara yëkkati leen bañ a tëral kenn ñu ngi naa ñaanal suñu mbokk yi ci prison yi yàlla teggi leen ci soow delloo leen ci fami baña duggal kenn ginnaaw loolu ñu ngi dellusiwaat ci suñu émission boobu eh, di balu ak nag képp koo xam ne ñu ngi jàkkaarloog yow ngay seetaan Prestige Thiès ci télévision bi wala ci YouTube bi ñu ngi balu ñëpp ak ci événement bu mag bi nga xamante ni nañ ko muy tabaski ñu dugg ci weeru zulxijja ñu ngi jéggalu ñëpp di jéggal ñëpp nag ba pare di ñaan yàlla mu boole ñu jéggal di ñaan yàlla mu may ñu ñu teewa ko ay at yu bare bare bare ci kanam incha allah yàlla mën na ko yàlla ñu ko yàlla defal ñuy ñaan yàlla bala weer bi di jeex yàlla fi yàlla teggi mbas mi ci àddina bi yépp yàlla yàlla jële fi covid 19 bi ñi ko jot am wér ñi amul yàlla bu bu leen ko yàlla teg yàlla ko fi yàlla yemale yàlla mën na ko mën na lu ko raw eh, ñu dellusiwaat nag ci suñu jotaay diine commencé woon fi bu ñu doon wax ci famille ñu ngi doon wax ci famille doon wax famille dislocation de la famille bi nga xam ne moom la ñuy dund ci jamono yi ci suñu réew nga xam ni sëy yi tas yu gaaw yi muy tas wute yi nekk ci biir kër yi ak yu bare yoo xamante ni ay gàllankoor la yoo xamante ni dañ koy dund ci biir kër yi tegoon nañ fi benn modèlu famille indi woon famille maam Ibrahim ndax événement bi ñu dëgmal muy tabaski ñu indi woon maam Ibrahim dund gi nga xam ne moom la dund ak soxnaam Euh, ak doomam Ismaïl ak soxnaam yi Hajara dund gi nga xamante ni moom lañ doon dund tegoon nañ fi lenn ci loo xamante ni ñoom doon nañ ko dundee nit ñun nañ ko bàyyi suñu xel euh, di ci sax ci suñu biir famille ndax famille ndax mën a restauré waat famille ba mu delluwaat nanga nga xam ne moom la meloon waxoon nañ ci communication bi amoon seen biir ñu ne famille il faut mu am communication ndax su ko amul réeroo day am te olof nee na réeroo bu amul euh, réeroo amul ñàkk waxtaan a am kon buñu waxtane rek yu bari dinañ ko mëna safar ñu wax ni ñom mam Ibrahim dafa ñew waxtaan ak soxna si waxtaan ak aussi dom ji ci gënt gi ka feñ won ni dafa wara teur domam ji rendi bam waxtane ak ñom ku ci ne delu wat sa boro sa bop ci sa borom subhanahu wa taala ñu wax ni kon di jittu ci fami moy li nga xamanteni moy soumission deggal borom bi subhanahu wa taala ba nga xamanteni ay santanem dañ ci tek sa tank ay santanem dañ ci def sa kem loolu mooy li nga xamante ni famille boobu moom lañ doon dunde moo tax tey jii li ñu am ñu am ko seen descendant ba ci suuf nekk ay yonent nekk ay royukaay donc famille boobu noonu la ñu nekk woon doon ko dunde léegi nag tey bi ñu njëkk a indi mooy ne xale ndekete du tere jaamu yàlla ndax Ismaayil jamono jooju xale la woon comme ni ñu ko waxee woon keroog waaye ba papaam ñëwee ni ko euh, damaa feeñ gént dafa ma feeñu ne dama la war a tër rey la bu ko neexoon mu ne il faut que jeunesse sa pace damay dund sama ndaw man tollooguma ci euh, war a dee bëggaguma dee léegi dama fas yéene dund sama ndaw xale bu ndaw la waaye dafa wane exemple jox ko képp kuy ndaw jullit ni leen ni xale ndekete du tee jaamu yàlla xale ndekete du tee du tere topp boromam subhanahu wa taala xale ndekete du tee topp ay waajuram ci li nga xamante ni moom lañ lay digal ndax euh, buñ lay digal rek sa intérêt lay doon motax mu ne ko demal gént gis la ngayen mu ne ko ya abati ifal ma ma satajiduni insha allah min as-sabirin yow sama bay defal li nga xamanteni mom lañ la digal li la yàlla digal def ko man insha allah di ma fekk ma bok ci way muñ kat yi bok ci way muñ kat yoy nak motax mu am tay limu ay motax bay yàlla yonent yàlla ibrahim tere ko ba war ko ray yàlla subhanahu wa taala remplacer ko ko ak xar bi nga xamante ni sunna soosu mooy dem ba fi ñu toll si jamono jii ñu nekk kon loolu tamit dañ fay indi dañu indi boobu pour wane ne tamit ndaw day nangul yàlla subhanahu wa taala ndaw day gëm yàlla subhanahu wa taala ndax kat yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax nañu juróom-ñaar yi nga xamante ni ñoom la yàlla di keral ëllëg yowmal xiyaam nga xam ne subhanahu wa taala day wàcce jant bi ba dara du ko séparé ñun naaj bi tàng jër yàlla yonent bi siteel nañu sept nit ñoo xamante ni bokkuñu ci ñu naaj bi di sonal ndax yàlla dina teg bâche seen kaw boo xamante ni dina leen muur ba du ñu yëg chaleur boobu bokk na ci ndaw loo xamante ni danga doon jaamu yàlla wala nga passé sa ndaw ci ay foo wala nga passé sa ndaw si ay caaxaan danga ko passé ci di jaamu yàlla bu boobaa doo yëg boobu chaleur kon maam Ibrahima jox nañu maam Isma eh, suñu yonent yàlla Ismaïl alayhi salaam jox nañu boobu exemple pour wan ndaw yi nga xamante ni ñooy ndaw jullit ñu xam ne ndaw day jaamu yàlla beneen bi mooy wan nañu fii tamit ni jigéen de suturaal borom këram ci jàppale gi ngay jàppale sa borom kër ci biir kër gi ci nangul gi ngay nangul yàlla ak nangul gi ngay nangul sa borom kër suturaal ko tamit ci la bokk ndax noonu maam xaajara doxee doxalee jamono jooju bu doon ci jamono jii la ku mel ni man bu la waxee sa doom ji nga xamante ni ay at ñu ngi ko doon xaar ba mu ñëw tey jii dañ ko war a rendi li ngay njëkk def mooy dem wuti koo dem ci moom ku mel ni eh, man ñëw naan kaan ah man de lii nee na ma sama doom ji dañ ko war a rey lii su ko defee moom it mu sol la bu dee eh, ku doy waar mu sol la xel mu bon ni la dangaa nangu lu tax nga koy nangu sa doom ji nga xamante ni nangam boobu ba léegi ah, moom amul woon doom yàlla jox la doom sa wujj bi nangam na rey sa doomu wujj lu tax reyu ko lu tax muy rey sa doom dina la wax a wax a wax a wax yàq sa xel ba kër ga yëngatu waaye moom dafa suturaal borom këram dafa nangul borom këram ndax xam ni yàlla subhanahu wa taala lim ñu wax mom bayina ci xel ndax yàlla subhanahu wa taala mi ñi wax si sóotu baqara ay 185 antum libasun lahun wa hunna libasun lakum mune ci góor ñi jigen yéen ay bubu ngeen ci seen soxna yi waye soxna yi aussi ay bubu lañu ci yéen yéen ay bubu ngeen ci ñom waye ñoom it ay bubu lañ ci yéen yére nak ku ne xam nañu pour lan la yére pour sutura nit ki la yére pour ar nit ki la diko protéger kon sutura boobu jigéen dafa war a nekk koo xam ne ku koy defal borom këram la ndax suturaa sa borom kër ci biir kër gi moo tax dooy wër di communiquer leneen ak leneen li mu la wax ci ñeneen ay jàmbur waaye di nga bokk ak moom waxtaan ak moom lépp lu mu indi nga suturaal ko ko lépp loo xamante ni neexu la sax indi na loo xamante ni lu doy waar la sax doo wër di ko wili pande di ko waxtaane feneen waaye da nga koy suturaal ñu nekk nag ci jamono tabaski boo xamante ni bari na jigéen ñuy wuññi seen sutura borom kër ñu war a bàyyi xel aaya boobu ni yàlla nee na yéen jigéen ñi ay mbubb ngeen ci seeni góor ni seeni borom kër waaye góor ñi it ay mbubb lañu ci yéen kon dangeen war a suturaal seen borom kër yi waaye waru leen yàq seeni deru borom kër am na jigéen ñoo xam ne fii mu nekk nii ci jamonoy tabaski dañuy fay dem seen kër lu am la gis nañ ko gisati ko ndax lan ndax sama borom kër indi lu ma xat sama borom kër indi lu ma jesner sama borom kër indi lu ma VIP sama borom kër indi lu ma brodé li ma ko laajoon ci tabaski bi defaluma nangam defaluma lii mu jaral la fay dem seen kër gis nañ ko gisati ko ñoo xamante ni dañuy ñëw waxuma la indi luñ la xar sax waaye xar mi dafa ndaw nga ne danga may tuutal danga may sawal ci sama kanamu nawle sama peccargo yi ma nekkal seen borom kër yi jox nañ leen lii seen borom kër yi jox nañ leen lii lu tax man mënoo ma ko defal seen jëkkër gënuñu la ya yéen a bokk ndey ak baay wala yéen bokk baay gënuñu la lu tax ñoom seen jëkkër defal leen nangam te man mënoo ma ko defal te fekk doole yamul mën na am ñii seen borom kër mën nañ ko yow sa borom kër mënu ko waaye mu jaral la nga fay ndax tabaski loo xam ne benn fan la boo liggéey ngeen war a dundaat dund goo xam ne fii ba at nga sas sa borom kër loo xamante ni mënu ko defalu la ko nga ëlbati ko dem seen kër fay di xaar mu fay fay li si la loolu ñàkk suturaal sa borom kër la te loolu itamit du jëf joo xamante ni jigéenu jullit war na jëfee noonu góor ñi aussi bu ñu diggee lu ñu mënul tabaski ba rek ma dig sama ba soxna loo xamante ni mënuma ko dinaa la defal nangam tabaski dinaa la jëndal lii naa la defal lii fekk yow xam nga sa doole eggul foofu bu mu la ci fekk lii laa mën ba tey ci communication bi waxtaan ak moom di bañ a nëbb sa soxna dara mu xam ne lii mooy fii la say sa possibilité yam lii nga mën lii nga am soo ko amulee nga waxtaan ceeg moom ba mu xam ba ci njaboot gi dañ leen war a yar ci loolu jigéen ñi nga xamante ni ñoo yar seen njaboot dañu war a yar seen njaboot ci xamal leen li nga xamante ni moo mën nekk ak li mënul nekk xamal leen ni fii la seen doole papa yam xamal leen ñun man fii la sama doole yam bañ leen yar yar goo xamante ni dañuy teg bët seeni ay moroom waaye bokk na ci boo yar sa njaboot yow soxna si nga booleel ko ci ni dangay xool ci ñi nga tane waaye bul xool ci ñi la mu xam li nga xam ne lii la ay waajuram am fii la yem bëgg-bëggam fii la yem mu bañ ko dépassé di seet ji leneen loo xamante ni ay waajuram seeni bëgg-bëgg tollu noonu ndax boobu éducation boo ko ko joxee mooy tax bu demee ba mag du mën a muñati dara lépp lu ñëw euh, ci ci lu mel nii du du ci mën dara parce que loolu la tàmm loolu lañ ko xamal kon loolu sutura googu aussi ñu xam ni maam euh, suñu euh, yonent yàlla Ibrahim dund naa ko ak Hajara Hajara suturaaloon na borom këram. bokk nañu aussi dëggu dëggu bokk na ci ñaari ay waaye dencante famille pour delloo si waat ko mu mel na mu meloon na ci na ko dëgg lal wax la rek li am amul làq-làqal amul nëbb nëbb wax la li nga xamante ni mooy li nekk wax li nga xamante ni mooy li mën a am am na ñoo xamante ni ca ngoroga la ñuy commencé di wax lu amul di la dig loo xamante ni dara du ci nekk di la dig loo xamante ni leer na lañu doo ko mës a def ba jël ko soxna indi doo ko matal tas am donc ci liy indi tas yi loolu ci la bokk ne lépp dëgg di ko lal lépp lu mu mënti doon rek dëgg moo koy lal dëgg moom bu poussé rek tas mooy indi eh, tasaaroo famille mooy indi kon famille moom dëgg ci li koy lal ci la bokk aussi kon suñu maam eh, Ibrahima moom moom ak soxnaam soosu di Hajara ak doomam jooju di Ismaayil dëgg moo nekkoon ca famille ba sutura moo nekkoon ca famille ba Euh, communication moo nekkoon ca famille ba soumission total si borom bi subhanahu wa taala topp ay santaaneem ak lu mu metti metti moo nekkoon ci famille boobu moo tax nag yàlla subhanahu wa la mu digoon maam Ibrahim ni ko say descendant ba ci suuf dinaa la muñ gi mu doon muñ ak ñaan mu doon ñaan dinaa la may li nga xamante ni moom nga bëgg defal la ko te defal na ko ko moo tax descendant ay yonent ñoo ci nekk di ñëw di nekk ay yonent ba ci si yonent yàlla sa Muhammad sallallahu alayhi wa ci ci ci descendant boobu la kon loolu dafa nekk loo xamante ni dañ ciy jàngee ni yàlla subhanahu wa taala boo ko nekkalee rek mu nekkal la boo bàyyee xel yàlla subhanahu wa taala ba lim la wax lu mu metti metti nga soumettre wu ci ala kulli xaal dana la ko fay même bu la ko fayul fii dana la ko dencal fële waaye dana la ko sax fay fii danga ko gis loo dundal borom bi subhanahu wa ci jaamu gi koy jaamu yàlla subhanahu wa taala dina la ko won fii ba pare nga ñëwati yombal xiyaam mu dencal la ko mu nekk ay ngëneel yoo xamante ni yu neex la yoo xamante ni dara doo ko ci réccu ndax yàlla subhanahu wa taala waxam du dellu ginnaaw te mi ngi ñuy wax ni man amila saalihan min zakarin aw unsa wa huwa mumin fala nuxiyannahu xayaatan tayibatan wala nujziyannahum ajram hum bi axsani ma kaanu yaamaluun borom bi subhanahu wa di ñu wax foofu surtout naxl ay 97 mu ne ñu képp koo xamante ni def nga lu baax jëf nga jëf ju baax moo xam góor nga moo xam jigéen nga nga jëf ko fekk nga nekk koo xamante ni ku gëm nga woon bi nga koy jëf gëm nga woon bokk nga ci ñi gëm yàlla subhanahu wa taala yàlla nee na boo jëfee lu baax rek nee na dinañ la ko fay fii ci àddina yàlla subhanahu wa taala dina la ko fay nga gis ko fii ci àddina ba pare nag nee na nga ñëw yombal xiyaam mu fay la ngën li nga doon jëf fii lu baax li nga jëfoon fii lu ko dàq lu ko gën a neex yàlla subhanahu wa taala dencal la ko fay la ko fële kon nekkate biir famille muy ku góor ki muy ku jigéen ki ku ci ne war na bàyyi xel ci li muy jëf ndax li ngay jëf du neen jigéen bu ne ci biir këram di jëf olof sax wax na e, e, liggéeyu ndey añu doom añub doom li ngay jëf ci biir kër gi yàlla dala koy fay ci sa njaboot ba pare nag nga ñëw yëmal xiyaam mu dencal la ngeen di fay dencal la ay xéewal dencal la ay neex moo tax bu ñu bëggee famille dekkiwaat na ku ne di sellal li muy def na ne di def lu rafet na ku ne di rafetal ci digganteem ak moroomam di rafetal ci digganteem ak ñëpp ñi biir ñi ci biir kër gi ndax famille bi mën a jëm kanam biir kër gi nag famille bi du borom kër gi ak soxna si rek de doom yaa ngi ci biir employé yaa ngi ci biir ak xarit sax yi nga xam ne dañuy ñëw ci kër gi di fa nekk sax dañuy dugg ci biir donc famille dafa nekk loo xamante ne lu yaatu la loo xam ne ku ci ne dafa war di rafetal jëm ci moroomam rafetal googu ngay rafetal dina tax kër gi neex parce que ku ne yàlla dina la fay li ngay def lu rafet ci biir kër gi ba pare nag ñu dem yomal xiyaam yàlla dencalaat ñu lu dàq lool muy àjjana yàlla ñu ko yàlla defal ñun ñëpp kon deqal famille daal rafetal sellal euh, suturaalante euh, waxtaan di communiquer euh, topp borom bi subhanahu wa lu mu digle nga bañ ci seet intérêt kenn topp ci lu mu tere nga bañ ci seet intérêt kenn bàyyi ko lii daal buñ ci saxee famille dina dellu siwaat mel na mu meloon yàlla dinañu ko fay ci suñu njaboot ba pare nag ñu deq yëmal xiyaam muy fayaat ñu ko ndax léeg-léeg nga gis famille boo xamante ni jigéen ji dañuy jàpp ne mi ngi liggéeyal borom këram dañuy jàpp ne mi ngi topp borom këram ndax kenn du ko gis mu waxanteeg moom kenn du ko gis mu def ko dara lu ñaaw ci li ñuy gis nga gis ñu màgg nga xool doom yi ngi gis doom yi ñii ña ngay drogué ñii ña ngay tox ñii ña ngay def lu bon ñëpp dañuy jaaxle naan ak seen yaay liggéey li seen yaay liggéey yëpp ñu ñoo bon te fekk dafa am lu ne ci suuf lu ñu xamul ne ca suuf jigéen dinay muñ ci kaw fekk mu ngi xoñañal jëkkëram ci biir am na jigéen ñoo xamante ni bu ñu wéeteeg seen borom kër ne lañ lay wan dinañ la xañ seen bopp ci biir néeg bi dinañ la wax loo xamante ni wen bu ci weñ bu ci tag dee ca biir yoo xamante ni nit ñi duñ ci xam dara yooyu nag day nekk luy fayu ci sa njaboot ba pare nag yàlla subhanahu wa taala nga am ci meram yàlla ñu ci yàlla musal kuy def rafetalal ci biir rafetalal ci biti lu mu metti metti rafetalal ndax doo ko réccu rafetal moom doo ko réccu lay feeñ ci sa njaboot yàlla na yàlla def ñu ñuy ay jigéen ñoo xamante ni ñuy rafetal lañu suñu diggante suñu boroom kër di def lu baax di sellal euh, yàlla def góor ñi aussi nekk ñoo xamante ni ñuy sellal lañu ñuy rafetal di def lu baax jëm ci seen soxna ak seeni njaboot waaye tabaski ñëw nga am ko mën ko sa soxna laaj la ko nga ne ko yorewuma ko sa njaboot laaj la ko nga ne yorewuma ko ba pare di ko joxe ci biti loolu yàlla ci yàlla musal sàmm àllaar baaxul li ngay li la sa njaboot laaj boo ko mënee joxe ko soo ko mënul nga waxtaan ak ñoom ñu xam ne mënuloo ko yàlla yàlla jubal ñëpp yal yàlla xiir ci boppam yal na yàlla def tabaski bi jàll ak jàmm kenn bañ cee dugg ci lu mu mënul ba ay bor dina ci fekk wala ay fay ma sama xaalis ak ay leneen ak leneen wala meru yàlla yàlla yàlla jubal ñun ñëpp ci yoon siraatal mustaqim ñu ngi nuyu képp koo xam ne yaa ngi doon seetaan sa émission jotaay diine di teg nuyoo bi si loxo Adja Mame Yacine HLM Thiali di nuyu suñu technicien bi ñu jàkkaar lool Moussa di ñuy nuyu képp koo xam ne yaa ngi seetaan Prestige ci sa émission jotaay diine aqulu qawli haza wa astaghfirullah li wa lakum assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin